ku jàpp moo gën a xam ñépp ñi xam ñépp xam na ne kooku daa xamadi ku naan moo gën a am ñépp ñi am ñépp xam na ne kooku bariliwul ku jàpp ne moo gën a niti ñépp nit ñépp xam na ne kooku nitiwul kuy def wax joo dégg dugg ci danga mës a dugg ci wax dégg ci loola soof kuy def loo ko nettalil mu ree ba daanu ci suuf xamal ne wax jooja fas yéene na koo nettali bu nit deexee bul ni xaaloo inna lillahi commencé rekk inna lillahi wa inna ilayhi rajiun bul wax tug waaye waxal tuub nel yan na ko yàlla xaare aljanna mais bul ne yan na ko yàlla xare aljanna xare yàlla daa métti bul ne doomu xaraam waxal doomu raam doomu raam ne ko ishrab ndiyam ishrab mooy naanal ndiyam mooy ndox mais bul wax leneen